Moussa Sall asalaamaaleykum. aleykum salaam. waaw ñu ngi ñëw sa place bi euh, donc xam nañ ne bu bois nga nga wax ñu nag nga dugg ci métier bi. waaw ginnaaw bu ñu santee yàlla di julli si yoon bi salaay salaam ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu defal ñu sutura defal ko mboolum jullit même mbokk menuisier yi nga xamante ouvrier yëpp laay wax yal leen yàlla defal sutura si li ñuy yëngu. waaw bi nag moom li ma si duggee du dara lu dul nekkoon si école bi. yàlla def euh, ma teel a décroché bàyyi sama xel ne ci menuisier ma dem maa ko dugal sax sama bopp am sama benn euh, waajur bu nekkoon fii si koñ bi daan liggéey menuisier ñu koy wax saari bu ma demoon si atelier laaj ko ne ndox ndax bu mën bëgg dama bëggoon liggéey bu mu am benn problème si laa tàmbalee liggéey boo wax léegi mu ngi bëgg a yàgg te boo wax léegi war na def lu mu gàtt gàtt ay 30 ans daal ma nekk ci boobu ba léegi aw ma beneen métier bu dul menuisier bi waaw. ndax yaa ngi ciy gis sa bopp. ah waaw ñu ngi siy sant yàlla bu baax parce que nit ki moom lépp loo xamante ni yaa ngi ciy yëngu boo xeebul li nga siy am rek rek xamal ne rek yaa ngi siy sant daal parce que lu mu gàtt gàtt moom maa ngi siy faj suma soxla ak képp koo xamante ni mën naa ko si dimbali tamit maa ngi ko siy dimbali kooku loolu kon boog maa ngi siy gis suma bopp la laa mën a wax. léegi euh, bi ñëwee léegi dañ fekk nga nekk ci benn liggéey. mu mel nii daal dafa am ay commande yooyu defar lii ban façon commande la. waaw lii moom moom mooy laminé moom mooy kon plaque bi nga xamante nii moom la nit ñi xewal léegi moom moom moom léegi la moom menuisier yi ëpp lu ñuy liggéey quoi seen yow liggéeyam gaaw na te commande am boo ko amee pour nga liggéey ko mën nga ko liggéey rapidement nga dem boroom dem si jiir bu gàtt. par rapport ak bois tamit bois bi quand même koy liggéey tamit aussi mais lamine bi daal moom mooy li nga xamante nii léegi moo ëpp si marché bi li ñu liggéey te kamot yi nii ay ay ay kii la ay comptoiru boutique la quoi boutique yu euh, nekk marché ma jaaykatu parfum yeex yooyu ñoom laay defaral placard yi nii waaw donc laminé bi mooy yi nga xam ne da fekk déjà planche bi day mat da ngay ñëw rek dagg li nga soxla waaw mu ngi nii parce boo xoolee lii nii lii coupon la waaw lii nii boo xoolee coupon la da ngay feuille bi ngay jënd rek boo jëndee feuille bi après nga débuté selon ko yow li nga soxla moo xam bu fekkee chambre à nga débuté li nga soxla bu fekkee ne placard lépp loo xamante ni moom nga si bëgg a débuté boo ko si boo ko si débuté di nga am li nga bëgg te vraiment neex na liggéey te aussi dëgër na ñu bëri dañuy am doute si koom quoi que ni dëgër na wala dëgërul mais dëgër na kon plaque bu dëgër la mën na durer bu fekkee ne liggéey nga ko liggéey bi nga xamante ni liggéey bi si war la vraiment lu dëgër la parce que boo koy comparé bois bi dangay xaw a juum parce que bois massif la bois munul munul munul yamax li nga xam ne dañ ko defaraat loolu moom moo tax nit ñu bëri am doute mais dëgër na si selon ki nga xamante ne ni bëgg na ko xelam mu ngi si mais boo boo fekkee da ko bëgg a comparé ah est ce que bois bi gën ko dëgër ah kañ bois bi moo ko gën a dëgër parce que lii dañ ko defaraat te bois bi massif la waaw moo tax ñoom ñaar mënoo leen comparé léegi bois bi xaw na jafe pour am ko de. non actuellement nii cher daal la ñuy jooy parce que quand sax nit ñi gars yi ñu ngi si commencé def tuuti jéego di ko wàññi nànk-nànk mais cher seeraayu daal moom wax yàlla moom la ñuy jooy moo tax léeg-léeg sax am na prix yoo xamante ni yenn meubles yi ko liggéey parce que prix bi mooy toll foofu imaginez feuille boo xamante ni mu ngi lay à trente mille trente trente mille loolu boo si bëggee jënd bés bëggee liggéey benn meuble bu ndaw lu mu gàtt gàtt di nga jënd deux feuilles mu war la coûté loo xamante ni mënoo ko des fois am na client xam ne doo leen mën a sax expliquer na leen temps nga may fay pour lii loolu moo war a seeraay bi mais ñu ñaan yàlla kañ xanaa mu gën a wàcc pour ñëpp mën si jot. waaw meuble yi ñuy jaay ci salon yi muy bi bitim réew est-ce que loolu du xaw a euh, yàq seen liggéey tuuti. ah kañ au début amoon na tuuti euh, sooxee suñu diggante meuble mais dem naa bis dem nañ bi si biir aussi. gis nañ ne ñoom ñuy commencé di comprendre parce que boo ñoom bu ñu boo léeg-léeg dañuy woose pour que ñu ñëw di leen réparal seen meuble yooyu mais ñu si ëpp suñu menuisier yi ñoom duñ ko sax nangu parce que looy réparé day fekk nga xam nga am foo xamante di nga fa téye soit que muy vis wala pont mais meuble yooyu bu fekkee bu commencé décoller amul fenn foo xamante ni mën nga ko daaj ba téyewaat ko parce que lépp euh, lu si ëpp bokk euh, escaf la am na si yu dëgër nag mais bariwul trop. mais par rapport ak lii nga xamante ni moom wax dëgg yàlla foo ko bëgg a jot pour téye ko fa da nga koy téye du benn waaw. gis naa ne aussi yéen a ngi góorgóorlu ci matériel bi parce que gis naa nga am benn visseuse électrique yooyu yëpp baax na ci. waaw waaw bien sûr parce que léegi foofu la jamono toll parce que léegi moom boo bëggee liggéey il faut ngay ngay ngay ànd ak jamono parce que léegi jamono yi léegi di nga liggéey mën nga liggéey ba pare doo sa yor sax marto même da dem si bërëb di fa liggéey mën nga liggéey foofu ba pare ki ngay liggéey sax dafa lay dafa lay naw si loolu mën nga liggéey ba pare mu gis na sa liggéey gaaw na set na te duñ la gis sax nga dóor wala ngay def benn dérangement boo xamante ne ne liggéey bu njëkk bi daan na ko laaj comme jamono li foofu toll te léegi wax dëgg yàlla matériel bi mu ngi ñëw ah dañuy jéem a ànd ak jamono rek jéem a mel ni ni gars waaw. waaw léegi euh, état bi loo leen laaj ñu dimbali leen parce que nit ay artisan ouvrier ngeen war nañ leen dimbali. ah état bi moom am na koo xam gi nga mbir boo koy laaj koo xamante ni moo la gën a xam li nga koy laaj que dañ koy ñaan rek kañ ne ko mu mu jàppale euh, artisan yi parce que soxla nañ ko fi mu toll nii. parce que bu njëkk ba boo xool ñun jamono ji ñuy jàng métier boo ñëwoon si atelier atelier bu mu ti doon daan nga fa fekk lu mu gàtt gàtt ay dix quinze apprentis mais léegi imaginer benn apprenti wala ñaar sax mënutoo ko am. parce que ah yow ñaata apprenti nga non actuellement nii awuma apprenti man damay liggéey ak sumay propre moyen amoo apprenti. am amoon amoon na apprenti mais léegi booy yi ëpp léegi nangutuñ toog si atelier yi. ndax lan dañ jiital xaalis. waaw jiital xaalis bi tam parce que bu jëkk ba boo gisaan euh, loolu am bu daan jàngi métier dañ amoon plaisir dem jàngi métier te wax dëgg yàlla moo ñu waral moo indi tey ñu rëcciwuñu ko. ndax tey amul liggéey bu ñu jaaxal ku foo xamante ni yóbbu nañ ñu fa pour ñu liggéey liggéey bu mënti doon yàlla dogal suñu ñu ko joxee si kàttan suñu borom ko liggéey loolu xëy na bëgg bi ñu bëggoon euh, liñ dem def la jàppoon ne métier bi suñ ko amee bu ëllëgee mën nañu jariñ moom moo waraloon loolu mais xale yi léegi euh, malheureusement ñoom loolu xaaruñu ko fa ñoom li ñu gën a gis mooy tey jii suñu liggéey yow benn un mois loo am nga bokk ko ñoom te affaire bi demeewul noonu parce que liggéey liggéey dafa bëri ay secret léeg nga gis euh, patron boo xamante ne nii day engagé liggéey moo xam la muy débrouiller pour terminer liggéey boobu yow bu fekkee ne yow li li nga teg bët mooy ah kii kat teg na ay jur jur maanaam jug na ay liggéey yu bari xaalis bi bari na lu mu lu liggéey bu dem war naa séddoo moom laa foofu problème day am mais boo jiitalee métier bi nag. bañ gis lu mu lu mu lay jox ba nga xamante jii li nga xamante nii man tey sama patron mu ngi nii amul benn weer bu mës a dee wala bu jot xanaa yow nga dem am xam ne kat am na foo jaar moom mu ñëw taxaw na la ah jox ma suma wàll si sa si liggéey parce que ma maa la ko jàngal. àllarba àllarba am nga loolu amul fu mu toll sa métier ah, yow yaa siy jariñu parce que di jàng jotee sacrifice wu nga jàng ko. loolu la jeunes yi war a xam boo xale yi war a xam loolu xam na nit ki amul kuy jàng métier di ko mooy garantie bi gën a wóor nii si si si si góor wax ma la bi ñu toll parce que boo ko amee dina la dimbali si lu bari boo ko amee dina dina la dimbali si sa dignité parce que doo xaar kenn lu mu metti metti nga toog liggéey bi xaw a euh, sooxe mais di boo ñëwee da ngay toog xam ne nit mën na ñëw léegi mënu kii rek moo ko am euh, ouvrier waaw ah, parce que ki ngay jàngal métier sax yow euh, même boo ko fayul yaa ngi koy jàngal gratuitement te yéen bu njëkk ba amoon ngeen benn secret apprenti yi desitu bant yi ngeen di jël defar baat kon daane jaay. ngoog te loolu loolu plaisir la woon si ñun parce que boo xoolee ñun bu njëkk ba euh, euh, samedi da nga daan loo am si wàllu desitu bant patron yi dañ ko daan bàyyil. nga defar moo xam loo mën a defar nga defar ko dem jaay ko am si dara te loolu dafay rëy ci yow loolu secret la woon. mais malheureusement les booy dañuy bëgg loo am ñu am lu toll noonu loolu te loolu mënu nekk nekk. waaw ci yu jëkk yi daal am na yoo xam du fu jege si bi ay rabo yooyu moom du fu jege. waaw waaw parce que yooyu ay ay li ngay utiliser sax du bari mais donc si pour pour yenn retouches la rek lu tax nga koy garder ay pour retouches la léeg nga am benn coupon boo xamante ni si boo si amee rek moo koy mën a dagg. donte di nga am si si boo xam ne si circulaire la amee booy mën a mais tout le temps doo ko mën di branché pour di si liggéey am si si amee bi di ko mën di utiliser pour dagg yenn coupon yu sew sewaan yi. kon yow ginnaaw meuble yi ñu fekk nii euh, meuble ngeen di defar di ngeen defar tam ay buntu ay palanteer yëpp en bois. tout lépp dañ koy defar lépp lu menuisier di defar lépp lu ñuy defar si wàllu menuiserie lu jëm si bâtiment wala meuble pour euh, chambre lépp ñu dañ koy defar waaw lépp dañ koy defar. di ñaan yàlla képp koo xamante ni yaa ngi yëngu si wàllu liggéey booy mënti yëngu yàlla nañ si yàlla defal sutura yàlla bu yaakaar tas si képp koo xamante ni yaa ngi am na loo loo tijji ngir am fa dara yàlla bu yaakaar tas si loolu. te réew mi euh, nañu li ma ciy wax mooy nañu na ndaw yi àndax dal rek parce que mënoo xëy am 30 ans tey am na 30 am naa 35 ans tey ma am kër am oto am soxla loolu mënut a nekk. nit da ngay boo ñëwee fekk say waajur tegu fi ñu tegu woon tey it di dund si sutura yow boo ñëwee da ngay dund si sutura boobu parce que nit ki mënoo am lu la yàlla joxul mënoo mel lu fi kenn melul lépp li fi nekk li yëpp yàkkamti la rek tey ci nit ki ki gën a ki ki ëpp jàmm si nit ñi mooy ki gën a doylu boo doyloo teg sa bët fi nga ko war a teg suñu borom mën na la dimbali si lu bëree bare bari bëri parce que nit ki dara dàqul nga xëy suba liberté moom mooy moom moom mooy moom mooy garantie bi gën a wóor liberté mooy lan tey jii boo xëyee mu wóor na foo nekk sa xel dal na fa doo xaar ku la fay ñëw di la jox joxor bi di la fa di la fa xas di la fa wax ne yaa ma def lii wala yaa ma def lële wala yaa jël sama lii wala yaa jël sama lële loolu liberté boobu doy na léegi nag tey bu fekkee ne la ngay am doyu la ba nga yaakaar ne da nga tardé fekk yow xamoo la mooy tardement xamoo la mooy tardement parce que tey ji yow yàlla ngi lay suturaal boo amee sa soxla làmb sa poos boo amee sa soxla lu mu tar tar suñu borom dina la suturaal ba nga mën ko euh, résoudre kon boog loolu rek jar na loolu rek doy na sëkk waaw loolu dalaay wax comme ndaw yi ñu ak dal encore gën euh, góor góorlu te xam ne ndaw dara jomb ko boo nekkee jub daal moom mooy base boo jubee suñu borom lu nekk mën nga ko am parce que mënoo ne damay am naa tey at bii rek am damay am loo xam ne su may waajur am ko yow mag ñi tey jii lu bëree bëri bëri ñi nga xamante ñooy suñu waajur yéen ñi nga xamante yéen ñu jur tey jii boo xoolee lu ëpp si yéen ñu lu ñuy am tey yéen amu leen ko woon mais seen dund boo gisee mu gën a mu ndax suñu dund da ngeen ñu ëppoon dal loolu moo taxoon seen dund. te lool léegi jamono ji def fi manqué il faut ñu nit ñi delluwaat si loolu xam ne valeur bi ëpp doole moom mooy dal bàyyi xel ne. li fi nekk lu kenn joxewul suñu borom ku yaakaar ne keneen mooy joxe yaa ngi nax sa bopp waaw loolu daal laa amoon di ko conseillé suma bopp di ko képp ku ma maasee lax su may euh, rakkax képp koo xamante ni ñoo bokk jamono di ñaan yàlla at bi yàlla na ko yàlla defal atum tànge atum sutura atum wér-gu-yaram surtout wér-gu-yaram jafe na fi lool lool lool lool yàlla na ko yàlla defal ñëpp